yaatal ci wolof Seydou salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimilah ci xibaar yi gën na cee fës ñu daal bañ foofe ca Pout Dagné duñ fa. Euh, suul ab néew di ab soxna daal boo xam ne dañoo jàpp ne daal moom du géer waral nag ba ay kuréel yëngu ci wàllu àq yelleef doomi aadama ci mim réew daal di ko naqarlu ko ci mel ni RADDHO Amnesty LSDH bu Assane Dioma Ndiaye ak Africa euh, Jom Center bu Alioune Tine ñoom ñëpp daal jàpp te sax nañu def lu ne ba loolee bañ fa amaat ñu ngay jéem a xoolaat ni ñu war a euh, yëre lii di njëgi dem ci TER bi maanaam di train sosé nga xam ne saxaar moo ko dawal directeur général bu SETER nag ne ay waxtaan ñu ngi koy waajal ak nguur gi responsable TER ba nag ne tamit na ñëpp xam ne courant bi dawal boobu lay saxaar du nag loo xam ne laalewul dara ak courant bi nekk ci biir kër yi kon daal jarul euh, di xalaat yenn yi ñàkk daal ñii di ay mécaniciens yu jëlee woon ca VDN ne duñu dem ca jam ñaajo di bërëb bébé leen fa wutal ñu daal Euh, ne daal foofe daal dafa daal ndaw loor ngir mu daal leen ñaareel pàcc xibaar tàggat yaram dañ ci ànd Youssouf Bodian yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy moo nekk digital bi salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM dañ koy tàmbaleeg coow bi nga xam ne jib na foofe ca Pout ne gannaaw bañ fa buggee euh, suul ab néew di ab soxna daal boo xam ne ñoo jàpp ne daal ab euh, géwél la euh, ci ca sëg yi nag foofee ca Pout Dagné ca région bu Thiès bëri na nag ay kuréel yëngu ci wàllu àq yelleefu doomi aadama ci mim réew nag ñoom dañu daal di daal jàpp ne loole xel mënu ko nangu ñuy tamit ñàkk rafetlu taxawaayu chef de village ba ñu nag kilifa yi Sénégal. Sénégal dañu fexe ba indi ci saafara na mu gën gaawee te sax nañu xam ne la am ca Pout Dagné loolee du fa guléet LSDH RADDHO ak am Amnesty daal jàpp ne loole faw ñu dal di ci indi ay saafara na mu gën a gaawee na ci déglu nag kenn ci ñoom di Alassane Seck moom mooy secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise de Ligue sénégalaise de droits de l'homme ci téléphone beeg Jean Paul Ndour. wax daal dafa am benn nit c'est pas la première fois sax bu ñaareelu nit wala ñetteelu nit bu gaañu ci seen dëkk depuis le vingt cinq décembre ñu war ko denc denc ko mooy suul ko léegi nag euh, waa dëkk ba am ñu si opposé wu nangu nangu wóorul ni ñu ngi denc kooku ci ci dëkk ba mu dëkk mu nekk dégg loolu mu nekk lu jaaxal loolu Sénégal en deux mille vingt un ñu ne loolu su amee su amee lu ñaaw la lu doy waar la loolu mënul nekk Sénégal deux mille vingt et un ñuy tere nit ñu suul ko nit moom dafa am da nga ko war a respecté respecte dignité am même su deewee surtout kon nag du ñu comprendre Sénégal 2021 ñuy bàyyi ay nit di aaye di tere kenn amul droit nit kuy dund ndax kuy dund amul kenn muy Macky Sall muy ku mënti doon di tere ñu suul nit quelque part donc loolu fu ko déggee mu nekk lu doy waar loo xam ni pour ñun musiba la sax. waaw mu guy lu ko xalaat catholique du ko xalaat kuy gëm yàlla du ko xalaat. Euh, autorité yi nag ñi nga xam ne dañoo ne ñoom bëgguñ ci àddu. loolu mooy manque de responsabilité. loolu mooy laxisme éhonté. loo xam ne dafa doy te gis loolu di duñ ci àddu ndax loolu su amee rek mooy Sénégal amul amul république amatul état bokk. loolu su amee vraiment c'est un scandale jëm nañoo jokkoo ak sous-préfet bu Notto Diobass Babacar Diagne waaye nanguwul yi yàbbi ci euh, mbir mi nga xam ne daal moom moo am foofee euh, ca Pout Dagné juróom-ñett waxtu teg na ñeent simili fii ci rajo Futurs Médias. pour man RFM utali Touba foofe nag lu mu néew néew ñaari téeméeri doomi aadama lañ fa dal di oolu ci euh, bés yi ñu weesu euh, kun ne nag ak déli bi nga xam ne amal nga ko loolu nag gannaaw ab opération boo xam ne dañ ko daal di amal ngir euh, sàmm kaaraange gox ba foofe Pabal Gueye def seen kéemtalaay kàttan ba defkatu ñaawte fi dootuñu am benn njëriñ ci dëkk bi loolee mooy mbëbët ñi nga xamante ne ñooy police ak gendarmerie lëkkaloo ngir daal di amal ay opération ci diwaanu Touba ci diggante 24 ak 28 lu tolloog ñaari téeméer fanweer ak benn ci ay doomu aadama jot nañ leen teg loxo muy téeméer ak fanweer ak juróom ci bësug 24 gi ak lu tolloog juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci bësug 28 décembre gi lee ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nit yooyu ñu teg loxo juróom-benn fukk yeeg benn ñoom nag dañ leen teg loxo gannaaw ba ñu amal ab enquête ci ñoom ak juróom benn yoo xam ne danoo màndi woon bay tërëf ci mbedd yi suñu sukkandikoo ci bataaxalu police ak gendarmerie gilée ci patrouille googee nga xam ne nag ñu ngi ko amal ci guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett am na ci juróom benn yeneen yoo xamante ne teg nañ leen loxo yoo xam ne dañoo yoroon yàmba di ko jëfandikoo ñaar ñoo xam ne dañ leen jàpp ñu jël yi fi jàmbur ak contrôle woto yi am na lu tolloog ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay kayit fukk ak juróom-ñetti oto ak fukk benn ci ay yoo xamante ne dañ leen yóbbu fourrière 276 xamante ni moom la ñu jot a am gannaaw ay amande yu ñu jagleel ñi nga xam ne ñoom lañ doon contrôlé Papa Balla Guèye tuuba rajo Futur Média. ñu waxtaanee ci jag yi nga xam ne moo jëm ci TER bi di euh, saxaar gi nga xam ne courant moom moo koy dawal mun na am nag ñu dal di ci laal dara maanaam ci yooyu lay njëg maanaam ñu wàññi ko. ki jiite nag euh, SETER ne ñu ngay amal sax ay jéem amal ay waxtaan ak nguur gi ci ab voyage nag boo xam ne da ko amaloon ni ki démb ca euh, TER ba nag ànd ak ay journaliste société boobee nag ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu exploitation TER bi nag euh, ne daal ñàkkul daal ñu jël ci ay jéego waaye tamit indi ña ay leeral ci yenn yi am na tabaat ci ay leeral. ginnaaw bi njiitu réew mi daal di dalloo saxaar su bees yi ñu duppee train express régional taskatu xibaar yi ñoo daal di jël bile saxaar su bees jóge ndakaaru ngir dem jam ñaajo ñu ngi ñaan ñëpp ñu wàcc train bi. directeur général bu SETER di Stéphane Volon di artu nag bépp ndaw bu jéem a dal ci bile jumtuwaay. képp ku jéem a attaqué TER bi sandar mi dinañu dal sa kaw ndaxte ñoom ñoo fi nekk ngir aar suñuy client ak tamit aar terre bi képp ku bëgg a sonal client yi itam ay daan tegu sa kaw. ñenn ci ay sénégalais gis ne njëgub dem bekk dikk dafa daal di cher directeur bu SETER di xamle ni dinañ càmbataat bile wàll fii ak ay weer yi di ñëw. la république sénégalaise est mon client je ne fais rien. réewum Sénégal mooy sama client man du ma def dara te laajuma leen seen xalaat bu dee fii ak ay weer réewum Sénégal dafa ma ne dafa seer bu boobaa dina fenc ci suñu liggéey te dinañu waxtaan ak réewum Sénégal. ngir xool. du Sénégal pour voir comment faire. Mame Fall di ab ingénieur moom nag muy dalal xelu waaye jëfandikoo yi di xamle ni bépp matuwaay dinañ ko daal di jël. courant bi nga xam ne moom mooy dawal train express régional bokkul jotewul dara laalewul sax ak courant bi nga xam ne moom moom la ñuy jëfandikoo ci kër yi ndax bu dee train express régional bi dafa am benn li ñu naan sous-station. maanaam dafa am loo xam ne moom mooy produire euh, courant wu TER bi. di xam bi di xamle ni njaayub ticket yi mën nañ koo amal itam ci xarala yu yees yi application am na te Ba ñett village yu commune bu Sandiara nag li ñu bëgg mooy courant mm, waaye tamit bërëbu fajukaay ne daal dañoo sonn tamit ci ñàkkum kaaraange foofee ca gox ba maire bi nag bu boobulee commune bu Euh, Sandiara ne bu ci yàlla ànd daal weer yay njëkk ci atum 2022 courant dana fa yegg si Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee village Kouj Ngomen ak Kébik nekk ci commune Sandiara ñu ngi wax seeni jafe-jafe Assane Dieng moo yor kàddu kuréel gi ñu duppee ànd doxal sunu gox. première jafe-jafe benn baa ngi ni école bi ngeen gis ne depuis 1983 la fi ne ñun ñooy rayante suñu bopp di def réflexion école lu ne ñun waa dëkk bi waaye dara amul amul dara des dal am na ci li nga xamante ni mooy aussi wàllu courant électricité ñun nous habitons au centre du pays mën nañu soriwuñu Dakar. soxna yu dëkkee ci bërëb boobu ñoom it ñuy xamle ni ay jafe-jafe yu tar lañuy ñuy jànkonteel ngir mën a jot jumtuwaay yu jëm seen wàllu wérgu yaram soxna Fall mooy njiitu groupement soxna yu dëkkee Kuuj. première li nga xam ne moo jëkkati suñu jafe-jafe. mooy fi mu ne ku fi feebar ku fi sa doom feebar bala nga nekk nga wasin war a dem war dem te premier sax boo ëmbee war a dem di defi visite problème la say visite day tàjj toujours pour problème mu dem surtout nawet loolu euh, bi daal mooy kii poste de santé daal ñun moo gën di suñu problème ñun jigéen ñi meeru gox bi di dalal xel yi Serigne Gueye Diop di xam le ni lii di courant atum 2022 gox yooyu dinañ ko am mbirum courant ñu ngi ci taxaw ndax ñetti fan ci ginnaaw samay conseiller ñëw nañ ci bërëb yooyu ngir xool nan lañu ñu war a mën a def ngir foofu am courant looloo tax sax ma wax ni fekk weer yu njëkk yi 2022 yi gox yooyu dina am courant. premier mois de Kibik di am yaakaar rekk ni dige yi dina sotti RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM rajo mécanicien yi nga xam ne leen a jege jële woon ca VDN ba yóbbu leen euh, Dalifort ñoom daal dañoo baññe dañu yegg si ca bërëb boobu ñu jagleen leen ca jam ñaajo fi ak njaxtalu at wi ne daal faw ñu daal di jeexal liggéey ba ci juróom fukki hectare yéen leen fa jox ndax daal euh, loolu rek mooy tax ñu daal di nangu dogal bi nga xam ne kilifa ñoom ñoo ko daal di jël bu ñu sukkandee ci ñooñu day artisan ci wàllu automobile Euh, ñoom daal am nañu ñaari junni garage di ay daal yoo xam ne war nañ fa yegg si te bërëb boobee ak ndaw lool ngir dalal leen ñu déglu ko yoroon seen i kàddu di Mamadou Mansour Seck ci micro beeg Ndongo Ka. depuis ba léegi ñu ngi nekk dégarpissement menacé presque lu toll ni 2710 garages yu ñuy dégarpir ci Dakar ñun nag suñu président moo demoon jàkkaarloo ak président de la République waxtaan ak moom ba mu octroyé leen 50 hectares ci Diamniadio depuis booba ak léegi nag ñu ngi ciy nekk di wax ak ñëw dem nañ fa visite des terrains ñu xool lu dul 50 garages yu pare caser nekk Ndakaar ñu ñuy dégarpir à tout moment ci deux cinquante donc pare fa wala pareegun sax ñu nekk en phase de construction ñu niy naxee loolu mënuñu fu ñu nekk ñu tëbal ñu ñun ñu soxla mooy recasement définitif dañu bëgg force covid 19 bii nga xamante ne président moo ko octroyé woon ouvrier yi muy milliards ñu def ci audit parce lu mat sax duggul ci artisan yi mais ñu ngi wax naan agsi na agsiwul ci ouvrier ouvrier yi dañu bëgg loolu mu auditer ñu vingt cinq milliards yooyu président de la République ñu ngi koy xaar ci discours à la nation bi mu war def di ko xaar ñun artisans yi ñu xool ba xam lan mooy suñu situation bi ak fu mu ñu jëmee ñu waxtaanee consommé local loolu am solo ci koom-koomu mim réew pàcc la daal boo xam ne euh, mënul dem euh, ci euh, mënul jóge ci ci koom Sénégal dina loo xam ne daal dañoo jàpp ne faw ñu taxaw ci buñ sukkandikoo ci ministre du commerce nag doon waxtaanee ci weer wi nga xam ne ko jagleel lépp luy consommation local Aminata Assome Diatta nag gën a bàyyi xel lépp luy promotion secteur boobee waaye tamit fexe ba jëlee fi chômage bi nga xam ne ñenn ci ay ndaw ñu ngi kaa dund taxaw tamit soxna yi yëngu ci transformation euh, waaye tamit ne daal faw ñu jàppale ñenn ñi ñooñu di ay soxna daal ne faw nguur gi taxaw seen liggéey boobee Nafissatou Ndiaye dooleel consommé local bokk na ci li nguuru Sénégal gën a dugal loxoom lilee di anam bi nga xam ni dañ koy jëfandikoo ngir gën a yokk suñu koom-koom Aminata Assome jaata jëwriñ ji ñu dénk wàllum jënd ak njaay. dañu war a gën a farlu di béy lu ñuy dundee ndax nag mënuñoo continuer di jéegaane lépp loo xamante ne dañ koy soxla ci suñu dund ndax loolu mooy créer développement ndax loolu bu amee entreprise yi dinañu gën a produire ndax danañu am marché bu gën a yaatu te entreprise yi bu ñu amamee marché bu gën a yaatu dañuy produire lu gën a bëri aujourd'hui dañuy employer beaucoup plus de personnes looloo waral sama ministère mu décider organiser li ñu naan le mois du consommé local bëggoon nañ ko lu gën a teel waaye mbas bi moo ñu xaw a tardel waaye gis ngeen fi lépp lu fi jot a jaar am na ay déplacement yu am solo ci région yi nga xamante ne ministère bi def na ko rencontré na ci ay transformateur ci wàllum seeni jafe-jafe ba tey ci wàllu woowu femme yi ñu seeni jafe-jafe Fatou Ndiaye Ndiaye di présidente des professionnels de l'agroalimentaire du département de Mbour. accompagnement la ñu bëgg ci problème Fra problème code barre ndax bu ñu amul lool doo ko mun a jaay doo ko mun a génne. xool aussi li nga xam ne moo jëm ci côté matériel te mu am ko mun ñu koo jàppale mu jàppale ñu parce que ñun euh, defe naa ne consommer local bu ñu koy wax jaboot moo tax donc loolu vraiment su fekkee ne dox na ni mu war a doxee ñun dinañ ci gis suñu bopp. ngir gën yokk jéego ñeel wàllum sécurité alimentaire ak nutritionnelle place bu a mag ci priorité politique publique bi bu sukkandikoo ci jëwriñ ji nu dénk wàllum jënd ak jaay. Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu. di fay la Seydou Nour Ba ñëpp. dañ ko tàmbaleeg football CAN 2021 ñu daal jàpp ne euh, préparation maanaam wàccaay gi gaynde tàmbale nañu ko. tàmbale nañ ko démb ak séance d'entraînement bu njëkk bi ñu amal ci stade Lat bu Thiès fukki joueur ak juróom-ñaar ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu convoqué. ñoo ci teewoon bokk na ci capitaine bi di kuliba Koulibaly waaye tamit euh, Moustapha Nam moom bi mooy doon guléet kon muy jongante Coupe d'Afrique des Nations ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop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 da lay da lay motiver pour que à chaque fois nga ñëw sol maillot bi muyee ko pour euh, rendre fier euh, dëkk bi yëpp nga xamante ni dañu yaakaar ci ñun donc euh, man du ma ko wax pression wante motivation la boo gisee nit ñu bëri ñu yaakaar ci yow nekk sa ginnaaw da nga war a def tout pour pour les rendre fier pour bañ leen décevoir. préparation bi mu nekk fii ak mu nekk Kigali ñun dañuy pare fépp fu mu fu mu munti doon dañuy pare. Moustapha Naam kon euh, nekk Paris FC euh, bokk ci joueurs yi teew fii ci euh, Ndakaaru jàppale ni kon ci gardien yi ñetti gardien yëpp ñoom teewagunu di Alfred Gomis kii di Edouard Mendy waaye tamit di Dieng ngir kon daal di leen remplacer ci wàllum remplacement ci wàllum entraînement yi kii di Aliou Badara Fati di gardien bu Casa Sport bokk ci réserviste yi ak Cheikhouna Tine gardien snap snap su ñoo doon entraîné kon démb ak gaynde yu Sénégal. Euh, Guinée mooy ñaareelu adversaire bu Sénégal euh, ci CAN bi ñoom nag am nañu euh, ñeenti cas Covid 19. ñetti joueur la bokk na ci Ilax Moriba Kourma moom moo nekkoon kon ca Barça nekk léegi ca Leipzig moom tamit bi mooy doon compétition bu njëkk ak équipe bu Guinée Mamadou Kane ak Ousmane Kanté bokk na tamit seen analyse vidéo moom bokk ci ñeenti am Covid 19 ba tax na ñoom démb dañoo des ca Conakry donte sax série national bàyyeeku na Guinée. dem ca Rwanda ca Kigali dañ fay amal seen camp d'entraînement nañ fa sax jongante le 2 janvier match xarito seen diggante digganteeg équipe bu Rwanda. ñu waxtaan euh, ay sportif des doomu sénégalais dañ leen a dàmp gannaaw ba ñu wane yenn ci ay xarañte. ay médailles yu ñu jëloon kon euh, depuis 2007 moo taxit kon démb euh, nguur gi génnee lu tollu ci 530 millions de francs CFA. Euh, ngir euh, jox leen ko si ay ndàmpaay ñoom kon ñu bëri ci ñoom toog nañu toll ci fukki at ak ñeent laata ñuy jot ci boobu boobule cérémonie bi am euh, démb ci teewaayu Bintaka. pour bépp raaya bu jëm ci wàllu sport dinañu feeñ ñi ko def seen ndàmpaay Matar Ba jëwriñ bi ñu denk wàllu sport fàttali na ci cérémonie bi njëriñu jàppale sportif yi. ki dëkk Fongolemi ki dëkk Chemois Fatick wala ki dëkk Thiès ak ki dëkk Dakar ñoo ci yem. képp ku sol maillot Sénégal Sénégal yëpp nga demal kon dafay laaj taxawaay dafay laaj ñu jaay xar kanamu Sénégal mucc ayib am na ñu ko def nag réussir ko am na ñoo xam ne réussir ñu ko waaye li mën a am mooy ñoom ñëpp ay ambassadeur Sénégal parce que Sénégal amul ñi ñoo war a am ñi waruñu am ñëpp a ci bokk yem. mu dolli ci ne ndàmpaay yi mënul ñàkk. ba képp ku nekkoon ku ñu yoreel ci 2007 ba léegi. ñu jox la liñ la war ba pare nag ñu trouver yeneen solution pour éviter ëllëg ñuy amaat gab bu mel ni kon jàpp nañu ne lu toll ci junniy athlète vingt cinq fédération loolu tey bu dee injustice dinañu ko toppatoo régler Ibrahima Wane di coordonnateur comité d'organisation jeux olympiques bu ndaw ñi nee na ginnaaw ñaxtu jàmm tamit monsieur le ministre dindil nga nag président de fédération yi dëgg bu mag a mag a mag mag ci seen i tànk parce que président de fédération boo xam ni dañ la dégg nga impuissant par rapport à cette injustice sa crédibilité ak sa légitimité sax mën na des waaye bu fekkee ni simple nga leen dégg boobu tey jii sérénité dugg na ci fédération sportive yi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu sport Mactar Ba ndàmpaay porte fii dinañ ci jot ginnaaw bi ñu mëtalee seen objectif yu ñu tegoon. Bintu Kaw yu suñu wutal Angleterre foofe nag ñu ngi woyal tey ca première ligue euh, ñaar fukkeelu journée ba. ñaari match moo am Chelsea bu Edouard Mendy mooy troisième mooy dalal Brighton bu 19h30 jotee. ñi di waa Brentford di dajeek Manchester City moo jiitu match bi 20 heures écart lay doon euh, jàppale ni démb Sadio Mané ak Mohamed Salah Euh, terewuñu kon Liverpool daal di euh, ñàkk diggante ak benn bal ci dara Cheikhou Kouyaté euh, titulaire la woon ci match bi doxoon diggante Crystal Palace ak Norwich ñoom ñoo gañe ñetti bal ci dara yeneen score yi diggante 1 diggante Southampton ak Tottenham Watford West Ham moo ko fekk daan ko ñeenti bal ci benn si dunoo ko. jaajëf ci suuf boo ak RFM kumpa jeex na. xibaar ñi laa day dañ cee ndagana rocha mag leen di nuyu mbokk yi ñetteeli euh, édition ndaje bi ñu dippee gingembre littéraire du Sénégal amal nañ ko euh, niki euh, fan yi li weesu mu newoon occasion ngir waxtaane dëkkandoo bi rawatina solos waxtaan diggante aada ak diine cérémonie synthèse de travaux yi nag ñu ngi ko doon amal ci Rufisque teewee na ko suñu correspondant Abdou Diouf Diagne. thème bi ñuy waxtaane ñu daal di koy méngale nag ak jamono ji nga xam ne li ñu nemmee ko mooy li ñu duppee wàllu extrémisme ak nit ñi nga xam ne dañuy jàpp ne fa ñu bokk rek moom moo gën ngir daal di koy xeex nag dara gënu cee ñoŋ li nga xam ne mooy wàllu caada bu ñu sukkandikoo ci El Hadji Gorgui Wade Ndoye moom mooy amal li ñu duppee gingembre littéraire fii ci Sénégal. mais moi je veux juste. man li may bañ rek mooy Rufisque bañ a dee ci wàllu xalaat ndax ne dëkk la boo xam ne dëkku caada la ba pare caada ji di ñu daw dañoo war a fexe nag daal di joxaat Tëngéej place bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu caada te loolu nag jàpp naa ne mënuñu koo wane fudul la ci jàmmoo ji nga xam ne mooy am ci diggante xeet yi ngir naka gën a firndeel solo gi nga xam ne dëkkandoo gu rafet daf koo am ci biir Sénégal kii nga xam ne mooy proviseur bu lycée Abdoulaye Sadji di joxe nag exemple Tëngéej ca jaare ko ci livre bi nga xam ne doomu Tëngéej moo ko bind di Abdou Salam à la survivance différente. nekkoon na te mu ngi wéy di doon dëkk boo xam ne dëkkandoo ci wàllu diine daf fi sax dàkk muy lislaam ak christianisme ñoom ñaar yàgg nañu fi lool te dëkkandoo bi ñu fi nekk tamit rafet na jàkka boo gis léeg-léeg sa wet ga boo fa xoolee gis fa ab église. góor gi Gorgui Wade Ndoye nag di xamle ne liggéey bi nga xam ne moo tukkee ci waxtaan yu am solo yooyu nga xam ne doon nañu ko def nag dinañu ko jébbal kilifa yi. wax lu soxal cinéma dem ba bi di Jean-Marc euh, Vallée andi tiis ak euh, nakar ci euh, réew ma daal na réaliser ay film yu bëri waaye bu ci gën a siiw mooy film bi ñu dippee Crazy Mamadou Aïcha Ndiaye ngir yeneen i leeral. Jean-Marc Vallée nekkoon réalisateur u cinéma boo xam ne bii ràññee ko nañ ko lool ci réewum Canada moom nag faatu na ginnaaw ba moo laaxee juróom fukki at ak juróom ñett. te lii tax mu faatu ba léegi enquête baa ngi wéy waaye xamaguñu ko li ñu mën a jàpp daal mooy police dem na fa nga xam ne kii moom moo di kër ga mu woon ñu gis ne Jean-Marc Vallé day yoratul bakkan police nag xool na ndax dañ ko faatam déet waaye loolu gisu ko nee na amul lenn lu luñ ci mën a xel ñaar pour la moment kër docteur ngi saytu lan moo ko war a rey ginnaaw loolu nag jàpp nañ ne ku génn woon ay film yu bari la rawatina tamit li nga xam ne mooy film Crazy jàppoon nañ tamit liste noire na ci réalisateur yi ñu gën a may xel jox ko gët ca fale nga xam ne kii moom moo di Hollywood ca réewum Amérique Jean-Marc Vallée nag nit ñu bëri ñu ngi méttit lu dem gi mu dem ci nga xam ne kii cinéma canadien nekk na bàyyoo ci jamono ji. ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen it mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllë incha allah. Savon de Marseille Alphée CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal. déodorant Malaysia Umo NCA santé famille ak NCA auto ak seen marque téléphone yi di Mion